ab minicar boo xamante ne rek dafa yeboon ay membre yoo xamante ne ñoom ñoo bokk même euh, famille jógee ko ca diwaan bu Touba euh, fekk baax ca diwaan bu Diourbel nag ñoom ñoo daal di rek euh, mbëkkante ak benn oto camion boo xamante ne rek mën doon daw nag ca wet ga jamono ji ñuy wax ñii di blessé yi daal dinañ leen di nga xamante ne rek moom ci structure sanitaire yu gën a jege nag ngir faj leen ñu faj nag juróom-benn doomu aadama rek la ñu enregistré woon ci saa si ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ñu sukkandiku rek ci capitaine Modou bu compagnie d'incendie bu secours bu Touba nag euh, bu ñu sukkandikoo ba tey rek ci boobu boobule accident ak patali benn minicar boo xamante ne rek mu nga jugee koon woon ca dumaan bu Touba yeboon nag ay njaboot yoo xamante ne rek ña nga fekk baax ca diwaan bu Jurbel ñoom nag dañoo ñëwoon rek niki tey ci suba fi nga xamante ne moom mooy Daaru marnaam ngir jaala si nag ba ñu retourné rek la ñu daal di mbëkkante ak benn camion bu ñu sukkandikoo ci sunu nattangooy Dakar Actu ba tey ci wàllum xibaar jëwriñ bu ñu dénk wàllum wër yaram ak action sociale Ibrahima Sy moom ci jëmmi boppam daal dinay amal ab tukkib nemmeeku rek foofu ca la ñu daal di jël rek ngir amal nag li mooy préparatif màggal 2024 mu nekk événement religieux boo xamante rek at bu jot la muy ci ay pèlerin toll na ci ay milliers doomu aadama ci wàccaay bu nu mel nag ngir garantir leen bu baax kaaraange jëm ci wàllum wér-gu-yaram ginnaaw ab tukkib nemmeeku bi nga xamante rek doon ko amal moom direct directeur Ibrahima Sy daal dinay xam njëriñ bi nga xamante ne rek collaborateur boobu daal dina koy am eh, ci diggante autorité yu ngànk wàllum paj mi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci organisation locale ngir nag mbir mënu mel nag ñu mën a assurer rek couverture médicale bu jaar yoon moom jawrin bi nag daal dinay rafetlu rek effort yi nga xamante ne rek jot nañ ko ci def ngir ñoŋal bu baax nag infrastructure sanitaire waaye nag eh, fexe rek ba mettre en place ay points médicaux yoo xamante ne yu la jëm nag ci séddale masque yeeg ñaan bu ko defee rek ñu mën a yokk nag professionnel de santé nag ci terrain bi moom jëwrin bi daal dinay jeexalee que ne engagement bi nga xamante ni rek gouvernement bi daal dina koy de Touba nag lañ ci jublu dul lenn rek ne rek la bu ko defee rek ñu daal di a dànkaafu lépp loo xamante ne rek risque la jëm ci wàllum war gi yaram waaye fexe rek ba may assistance médicale bi ay qualité yoo xamante rek qualité yu mucc ayib la fexe rek ba ñi nga xamante rek ñoom ñooy ñëw ca boobule dëkk sell ñu daal di amal seenu màggalu jàmm ak salaam jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar